waxoon na ci gannaaw kan moo sañ a forcé jigéen ja may ko jëkkër te du sañ a bañ muy wax nag ñett ñoo xam ne sañ nañoo forcé gone gu góor mbaa ab dof gu góor takkal ko soxna te du sañ a bañ mu jëkke baay baay su doomam ju góor dofee te mu jàpp ne bu ko takkalee soxna soxna su mën koo sàmm toppatoo ko wala mu ragal ne su ko takkal soxna itam day jaaloo rek di wéy kon sañ na koo forcé takkal ko soxna ba tey baay doom ju góor joo xam ne gone la sañ na koo forcé wutal ko soxna te du sañ a bañ bu fekkee ne wutal ko soxna moo gën ci moom mel ne doon koy bëgg a takkal day jigéen ju baax ba noppi bari alal mbaa muy jigéen ju baax ju am daraja bokk ci askan bu baax a baax wala muy jege ñaale boo xam ne bu ko rawee xëy na am ku mel ne moom dana jafe wala boog daa bëgg xale bi am na alal te bu ko wutalee soxna soxna si dina ko mën a sàmmal alal ja bu fekkee itam bàyyi nekku fa nga bàyyi ba dénk gone gu góor ga mën naa forcé gone gu góor googee takkal ko soxna ngir maslaa na ko baayam mane woon bu fekkee itam bàyyi nekku fa amutoon kum dénk doom ja kon attekat ba moo fay sës attekat bi mën naa forcé gone gu góor takkal ko soxna bu gisee ne gone gu góor googee bàyyam nekku fi te dénkoo kenn te forcé ko takkal ko soxna moo gën ca moom waaye nag attekat moom du sañ a forcé mukk lu may bàyyi dafaa nekkut ku bàyyi dénk itam nekku fa lu may nag bàyyi nga fa mbaa ka bàyyi dénkul ma nga fa waaye kooka ba muy dof day gannaaw ba mu kàllafee koo xam ne gannaaw bu kàllafee ba noppi la door a dof àttekat ba moo yore mbir ma bu ñu nee nag bàyyi mbaa ka bàyyi dénk mbaa buñ fa nekkut àttekat ba ñoo sañ a forcé góor takkal ko soxna te kooka di gone rek mbaa mu di ab dof kon génne nañ ci nag ku mel ne mbokk rek ci gone ga wala ca dof ba wala koo xam ne tey bàyyi bu ndaw rek mbaa muy keneen ci kilifa yi waaye bokkutut ñii sañ a forcé bu kenn ci ñoom forcé woon gone ga ci misaal daal di koy takkal soxna am nañu ne faaw dañuy tas sëy ba doonte sax gone ga dootoon naag soxna soosee te mu yàgg boole ca am na bàyyi bu sañee forcé doom ju góor ja dof wala doom ju góor jay gone ko sañee forcé ngir maslaa topp sañ-sañ ba forcé ko noonee ngi wax ne ko yaa warlu nag can gi mooy can ga yaa koy joxe àll sëy ji yaa ko war a gàddu doonte sax da caa tegoon leeral ne duma ci gàddoonte can itam ñu ne ko faaw yaa koy gàddu lu may nag jamono bu ñu forcé di ko may soxna daa fekk gone ga baa dox ba am na alali boppam di ñu def ca sëy boobee kon gannaaw ba moom su demoon ba amatul alal ja itam ndegam ba ñu maye booba amoon na rek bàyyi ba can ga du ko ca war waaye nag bu fekkee ne moom amuñu woon alal ci dañ leen di may soxna sax gannaaw ba bu ñu amoon alal itam dañu wax ne bàyyi bi yow yaa warlu alali sëy ji nga xam ne su bàyyi ba faatu woon tam ñu génne ko ca dono ba mooy ñu génn alali sëy ji ci dono ba bala ñoo miraas su fekkee nag ba mu leen di forcé di leen wutal soxna am nañu alal kon ci seen alal dañuy génnee alali sëy ja bàyyi ba du ca warlu dara ndegam daal bañ leen di may soxna fekk nañu am seen alal yi bopp ci seen alal la ñuy génnee alali sëy ja lu may nag kay maye jigéen ja di kilifa ak jigéen ja moo wax ne yow bàyyi bi yaay gàddu can gi sama diggante yow wala bu dee ka bàyyi ba dénk mu ne ko yow mi amee kilifteefu gone gi yaay gàddu can gi duma ko aj ci gone gi ndegam kilifa jigéen ja ñuy maye sart na bu wër ne alali sëy ji moom bàyyi bii moo koy warlu da koy sart mbaa kii bàyyi dénk mu ko amee mbirum gone gu góor ga mbaa dox ba moo koy warlu ko si sart rek ñu fekk ko ca loola ba ci àttekat bi nga xam ne sax dafa ñëw forcé ba forcé itam kenn du ko fayloo can benn yoon du tee bu ko kilifa jigéen ja sartee ne ko yow yaay fayit mu daal di war a fay su fekkee ne bàyyi daa fekk doom ju góor joo xam ne mag la mu kalaf la mën naa dem ak boppam yore mbiri boppam bàyyi ba daal di koy may soxna te leerul nag ba xam moo warlu alali sëy ja muy can nga wala doom ji góor jee ko war a joxe ñu xëccoo nag doom ji ne ko yaa jekki-jekki may ma soxna te kon dangaa warlu alali sëy ji rek xam naa moo tax nga def ko bàyyi bi ne ko dama laa sañ a wutal wutal la rek waaye li ci dem yaa ko ci war a def mu ne bu fekkee jote amagut yéetuñu defuñu dara may kese rek am nañu ko tas nañu dindi sëy ba lu may nag bàyyi ba wëlbatiku nangoo gàddu alali sëy ja mbaa doom ja wëlbatiku nangoo gàddu alali sëy ja su boobaa kon ko ci warlu ci ñoom ñaar rek ñu bàyyi sëy ba wéy waaye bu fekkee ne kenn ñoom ñaar mu ngi wuta warlu alali sëy ja te gis nga ne ak maye dong dong moo am kon nañ ko tas buñ ko tasee col du ca war dara du ca war bu fekkee ba ñu xëccoo nag doom ji ne ko yaa war a fay àlli sëy ji muy can gi waaye ba ne ko déedéet yaa ko war a fay daa fekk booba wéet am na maanaam doom ji wéet naag soxna soosee ñu ko may ndegam moom bi ñu xëccoo ñoom ñaar doom ji ne baay bi yaa ma may soxna yaa war a fay àlli sëy ji baay bi ne ko dama laa war a wutal rek wutal la waaye yaa war a fay daa fekk booba doom ji góor ji wéet naag soxna soosee ñu ko may ba àggal nga xam ne can mënu caa ñàkk kon bàyyi moom bu waatee rek ne ko musuma war lu mukk can gi day daal di set wecc kenn ko waral ci moom ñu wax nag jëkkër ji muy doom ji góor ji ne ko ne ko wéet am na nañ bàyyi kenn gi waxante woon dañ seet rek can nga jaadu nga wax canuk kem nga joxe ko su fekkee dañu waxante woon can goo xam ne moo ëpp canuk kem mel la ñu waxante woon téeméeri junni te canuk kem moom doon juróom benn fukki junni kon faaw doom ji góor ji nga xam mooy jëkkër ji waat ne musuma jàpp ne maa war a joxe can gi waat googu mooy tax ñu bañ ko fayloo téeméeri junni fayloo ko juróom-benn fukk yi nga xam ne mooy sadaqul misli ndax bu fekkoon ne sadaqul misli canuk kem daa tolloog can nga ñu waxante woon mbaa mu far ëpp can nga ñu waxante woon kon loola la jëkkër ji joxe te mooy doom ji góor ji waaye ndegam nag canuk kem gi daal yées lañ waxante woon faaw waat googu mënu cee ñàkk dafa tudd fii ñett ñoo xam ne dañoo war lu can ne jëkkër ja maa la koy joxeel ki njëkk wax mooy bàyyi wax doom ji góor ne ko maa lay joxeel alal sëy ji defe ko it na mu ko waxe woon waaye nag doom ja daa fase soxna sa te fekk jotuñ dara dara nga xam ne kon genn wàllu can ga rek moom la jigéen day moom waaye genn wàllu can ga day dellu si mu ne nag bu dee dellu si bàyyi bi moo koy jël doom ji da ko wax ne ko maay moom genn wàllu googu ndax de comme can moo taxoon mu sëy bi taxoon rek bàyyi bi di ko joxe te sëy bi dañ na alal ji dellu si ci moom lay dellu si moom bàyyi bi ñaareel mooy borom dara ji joo xam ne daa bëgg lu baax rek ne diw maa la warlul li war ci sëy bi muy can gi moom it joxe woon na can ga waaye kooka daa fase te jote amut wéet amut nga xam ne kon soxna sa day moom genn wàllu can ga genn wàll ga dellu si kon genn wàll gay dellu si ba tey borom daraje jooju moo koy moom waaye jëkkër ji du wax ne maa ngi moom genn wàllu googu te ko ñetteel nag mooy góor gi ci boppam moo juru jigéen ji ñuy maye xam ku koy may ne ko nag daal koy may ba noppi defal la can gi nga xam ne moom doom bi jigéenam lay maye te mooy joxe can nga ca war mu def noonu maye ko warlu can nga far koo ko fase ko te wéet amut nga xam ne kon genn wàllu can nga moom la jigéen day moom ne kon genn wàll ga ba tey day dellu si ci moom baay boobu nga xam ne moo maye woon doom bu jigéenam te waral woon can nga tam koy may bu fekkoon ne it ñett sëy yi nga wax yoon da koo seet ne baaxut daal di koy tas te fekk na wéet amut kon xam nga can nga léppay dellu si mu ne nag bu can nga dee dellu si ba tey ci ñi mu la waxoon rek ci ñoom lay dellu ñoo koy moom waaye jëkkër ja moom du sañ a laaj dara ci alal ja di wax naa ndegam man lañ mayoon kat te alal ji di dellu si man lañ koy jox ñu joxe woon ngir bëgg sëy bi baax te yàlla sottulu ko rek ñooy moom alal joojee ñett ñi la weesu nga xam ne dañoo warlu woon alali sëy ja gannaaw bañ ko joxee nag te am na yoon boo xam ne genn wàll ga moo dellu si genn ga dellu si wut te it bu fekkoon ne wéet amoon na ba can nga war moom can nga léppay dem dara du ca dellu si ne su boobaa nag ñoom ñi kenn mënu caa wax jëkkër ji ne ko da ngay fayaat li ma la defaloon ci jigéen ji waaye loolu nag dañoo amoon ñetti baat ñoo xam ne moom lañ baaxoon a jëfandikoo ci yooyu jamono alxamalatu alxamlu ak damaan ci seet ñetti baat ñooñu ci yooyu jamono daana tax atte ba wuute alxamlu buy firi yenu su ne ko maa yenu can gi nga xam ne baatu alxamlu yenu la jëfandikoo dañu jàpp ne kon da ko warlu bu wér nga xam lu yàgg-yàgg kenn du ko ko delloo mukk mukk mukk mukk bu ci mu ne alayya xamlu sadaqi kooku moom dañuy jàpp ne yenu na ko rek moom lu yàgg-yàgg kenn du ko ko delloo moo xam ba ñu wax loolu njëkk ñuy maye la wax wala waxtoo ñuy maye la wala gannaaw bu ñu mayee ba noppi la bu wutee nag baatu alxamalatu bi ñu firee gàddu bu ne woon alayya xamaalatu sadaqi dañu jàpp ne xamaalatu moom da nga koy gàddu rek joxeel ko waaye da ngaa jublu mu wëlbatiku joxaat la ko kooku moom moo xam ba mu koy wax daa fekk mayeeguñu wala waxtu wa ñuy maye la wala gannaaw buñ maye la sañ naa laaj ne nañ ma delloo li ma joxe woon mu des nag baatu ab damaan bii firi garante bu fekkee dana ko maa la garanteel can gi daañu textal ba mu koy wax muy gannaaw buñ mayee ak bu njëkk ñuy maye wala sax ci waxtoo ñuy maye bu fekkee ba àddal xaq bi la ko wax bu fekkee gannaaw bañ mayee la wax loolu daan sañ a laaj lam joxe woon waaye bu fekkee nag ba ñu mayeegul la mbaa ba ñu maye moom du sañ a laaj la mu joxe woon illaa li qarinatin nag jéemu ci rek xool ko dara ngir firnde aw warfin wala aada bu fekkee ne kat ab zamaan la jëfandikoo te it gannaaw ba ñu maye ba noppi la ñu ne ko woon yow jeex na doo sañ a delf gannaaw tutee buñ gisee luur lu wane ne naka jekk moom dañ ko war a fay lii mu ci joxe loolu la jàppoon mbaa lay aada foofu moom loolu la ñuy jëfandikoo dañ koy jàppe ne ab sart kon dana sañ a laaj la mu joxe woon la sëriñ ne mu ne ko maa yenu can gi ak mu ne ko maa lay joxeel alali sëy ji ñoo yemoo rek kooku moom da koy joxe te kenn du ko ca delloo dara dara